Bismillahirrahmanirrahim. li ay laaj la ak tontu yu jëm ci jàngale té jangal goné ak jigen ñi seen pas-pas ak diiné téré bi nak mi ngi tuddu Tuhfatu niswan ci jàngale ci waxtaan nako sunu borom nangu kem maguk borom touba fa mom te jariñ mboolem ay murit ay muritam ci barkem amin yaa rabbal alamin yaay man kañ laa juddu yaa ngi juddu atum sasin ci téeméer ginnaaw junni ci gàddaay gi lan mooy gàddaay gi gàddaay gi mooy at mi sunu yonent bi sallallahu taala alayhi wa juddoo màkka jugee màkka dem madina kan mooy yonent bi sunu sunu yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama moo di muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama ana moom nekkatul ci àdduna waaye madina lañu ko denc lu mu fi doon def nee na boroomam moo ko fi yónni woon mu nuy xamal li nu war kan mooy boroomam nee na boroomam mooy yàlla tabaaraka wa taala kan mooy yàlla taala laaj ko sa baay baay kan mooy yàlla taxalaa yàlla moo mooy ki nu bind moom nu nun ñëpp moom asamaan yi ak suuf si ak lépp anamu amul barab amul jamono mi ngi fépp ak ci lépp lan mooy lan moo tax mu bind nu nee na danoo bind ngir nu koy jaamu moo di topp ay ndigalam ak moytu ay tereem lan mooy ay ndigalam ak ay tereem moo di yi mu digle ci alquran ak xadiis yi ak yi muy tere lan mooy alquran alquran ab téere la ab téereem la bu mu wàccee woon ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa wa baraka di ci digle di ci tere di ci xamle ak màggam akuk teddam lan mooy xadiis yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa baaraka moo di ay waxam yi mu daan wax dinu leeral li nu mënta xam ci sunu xel te lépp nekk ndigal yàlla tabaraka wa taala baay ndigal yàlla yooyu ak tereem yooyu ñooy yan bari nañu lool waaye bu dee ndigal la ko ca gën a hitteel moo di wéetal ko moom yàlla tabaaraka wa ak julli juróom ak woor ak joxe azaka ak xaj makka boo dee tere yi bu dee tere yi lu ko ca gën a moo di bañ koo bokkaale kenn bañ a fen bañ a jëw bañ a ràmbaaj leeral ma ndigal yi ak tere yi ba ma xam leen sëriñ tuubaa xaadalahoo laahu maxtaaralahoo nee na def na téere bu bu téere yu bari di ci leeral yii kan mooy sëriñ tuubaa xaadalahoo laahu maxtaaralahoo sëriñ bu yéeme la bi fi ñëwoon ginnaaw yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa wa baraka daan mu soññ ci topp ndigal yi ak moytu tere yi ba sun maam yépp ànd ak moom ci loolu téere yooyu nu ñu tudd am na bu tudd tazawudu shigar ak jazbatu shigar baay ndigal yooyu lu ñuy jariñ boo leen dee topp ak tere yi boo leen dee moytu dalay dugal àjjana musal la ci sawara lan mooy àjjana ak kër la gu ëpp àdduna ay yooni yoon ñii topp ndigal yi tey bàyyi tere yi ñoo fay tàbbi duñ sonn duñ xiif duñ mar duñ tiit lu ñu bëgg gis ko te duñ ko te duñ génn lan mooy sawara ak kër la gu ëpp àdduna ay yooni yoon ñi dul topp ndigal yi duñ bàyyi tere yi ñoo fay tàbbi ñu leen di mbugal di leen sonal duñ dund duñ dee faw bu nu faatoo tàbbi foofa ku faatu da ngay nekk foo xam ne barzaq la tudd foofee dana fa xam dana fa xam ni àjjana la jëm wala sawara la bu dee bu dee lan mooy ndig lan mooy dekki mu ne ko mboolem ñi faatu sun borom bim leen bindee dalee leen a dundal da leen di dundalaat ginnaaw bu nu dee dajale dajale nu fi benn barab dinu laaj kenn kenn loolu mooy bis penc yi lan la ñuy laaj li mu li mu nuy laaj mooy li mu daan digal ak li mu nu daan tere bu nu noppee jéggi siraat lan mooy siraat aw yoon la wu nuy jéggi ngir mën a dugg àjjana ku ko jéggi sab coono jeex na am na itam ñuy daanu